kontaan kon gis ngeen noonu li nga xamante ne moom moo di population bi gis ngeen noonu li nga xamante ne. alors Sonko Sonko lañ bëgg de Sonko lañ war a kii na seet rek na set waaw waaw incha allahu rabi man la Sonko. voilà voilà kon gis ngeen noonu li nga xamante ne moom moo di. voilà gis ngeen noonu li nga xamante ne moom moo di askan wi kon ñu jéem a wàcc wala père. per da ngay jéem a jege si en waaw niñ gisee mooy mbooloo mi ñëw na te li ko jar mooy Pastef kenn forcé wut kenn nit ñi ñoo yore seen moyen bopp mu leen jaral ñuy ñëw ah, te li continué teel a bëgg nañ jël assemblée incha allah merci beaucoup incha allah bi dañ dañ koy jël incha allah bu neexee yàlla yàlla yàlla day fay fay bor du dañ koy jël incha bi dañ koy jël incha yalla mën na ko yalla ko yàlla def kon ñu nekk fii ba minuit ci guddi li ñu ko jaral mooy Sonko ak Pastef ak Diomaye te bëgg nañ incha allah ñu gunge leen ba fin mu des si ñoom incha allah. li ko jar moo ko jar li ko tax moo ko tax xoolal suñu ay magu kese lañu li ñu ñu jaral depuis suba ba léegi ñu nekk fii dafa am lu ko jar incha rabbi yàlla na ko def yàlla yàlla day fay bor. bu leble waaye day fay bor incha rabbi day am incha rabbi dañoo bëgg a jël assemblée. ñu gis itam forte mobilisation bi. naam guddi na waaye teewul askan waa ngi fi xaar mag ak ndaw ñëpp. moo jar loolu. waaw songo moo jar loolu songo moo jar loolu loolu moo tax nit di bàyyi seen soxla ñoo topp ko fii waaw songo moo jar loolu quoi day am si moom yaakaar waaw day am si moom si yaakaar loolu moo tax quoi jërëjëf. merci beaucoup merci loolu di réaction ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les militants et sympathisants yi nga xamante ne ñoo fi euh, daal di euh, taxaw boobu ba léegi di xaar li nga xam te moo di seen leader. le leader du parti Pastef le voilà euh, kon euh, ki nga xamante ne mooy di Boubacar Camara moo nekk noonu génn ngir saafantoog ki nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi en ki nga xamante ne moom mooy di Ousmane Sonko génn. lii du munta nekk nenum nen. lii munta nekk nenum nen. lii mun ta nekk nenum nen xoola doomu aadama yi rek kenn fayul leen kenn joxul leen daram li leen jaral moo leen jaral Sonko moo leen jaral te incha allahu yàlla dina ci def doole am ak katanam mën na ko te yàlla na dina ko def incha allah. Sonko rek Sonko rek. waaw man mag laa waaye lu mel nii. yaa bu fekkee ne mën nga jege si ñu ñu am. voilà yaa booy yaa ngi en direct. ah waaw ñu ngi en direct. waaw Sonko daal ñun moom lañ waxal moom lañ gëm moom lañ bëgg. waaw yal ko yàlla jàppale jàppale képp ku jullit kontaan nañ ci moom trop. fii ci Sonko moo waral doon mag bi ba ba pare buuxante bi ak guddi gi teewul nga nekk. bëgg ko rek ca bëgg jàppale réew mi ca mu ñu sonn lool mu ngi ñu jàppale. waaw comme mu ngi ñuy jàppale ci réew mi ca sonn lool moo tax ñu soxla mu jàppale ñu li ñu soxla mooy Sonko na àgg Kaaràn. Kaaràn bureau ka Sonko moo ko kon li jaral loolu mooy mu ñëw ñu gis ko ndax nit ñaa fees kaaraan di koy xaar jërëjëf jëf suñu bopp ko loolu lañ bëgg lañ jógee bëgg lañ jógee ñi ko ci tang siaka ko ñëpp ñu fa ñu jógee ñu bëggal Sonko dañ sonn dañ dee dañ bëgg a dee ay mag yi jëm ñu taw Sonko Sonko rek la ñuy topp Sonko Sonko moom la topp ba dee. ku yàlla àndal lay àndal Sonko lay àndal moom la yàlla àndal xool dañu yël député bàyyi leen 15 yi ñoom ñu séddoo ko. voilà voilà kon li nga xamante ne moom di réaction wu ñii euh, askan wi réaction wu ñii di militant yi fi nga xamante ne moom di. nekkoon fi nga xamante ne ñoo ngi soog agsi waaye gis ngeen mbooloo mu bari mi nga xamante ne moom lañ fi fekk mbooloo mu bari mi nga xamante ne gis ngeen nen noonu wala dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne moom la ñu yëkkati boobu ba léegi nee nañu ñu ngi xaar ñiy jóge fii ba Bettenty Bettenty nga xamante ne ci biir île yi la Bettenty nga xamante ne bala nga fa yegg da ngay jël gaal jéggi ndox soo ko yegg foofu nga xamante ne moom di ca Bettenty te teewul ñu joge fa suba ba léegi ñëw ba fii ñun dee nañ waaye fi ne dund nañ dund nañ dund bu baax a baax a baax dara dund lañ dund xam na ko Moussa xam na ci dara xeex nañ guddi xeex nañ ba voilà yéen a ko dégg noonu yéen a dégg noonu li nga xam te ne moom moo di le différentes réactions comme ni ngeen ko déggee comme ni ma leen ko waxee sànq ay dëkki dëkkaan ñoo daal di dajaloo fii fii ci Sokone ngeen déggee itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi jóge ba fële ca Kaarang di sàkku ci moom Ousmane Sonko mu daldi di fa yegg ngir saafantoog askan wa nga xamante ne moo koy daal di xaar foofee ca dëkk boobu di Kaarang nga xamante ne daanaka foofu boo fa génnee rek fa ngay dugg mooy ca réewum Gambie kon fii ñu ngi fii ci Sokone gis ngeen noonu le président du parti Pastef Ousmane Sonko moom mooy nuyoo ak ñi nga xam te ne di ses mu ngi noonu Ousmane Sonko l'homme qui qui est parvenu à convaincre toute une jeunesse à lui suivre. L'homme qui veut révolutionner la politique politicienne au Sénégal. L'homme qui a toujours tenu tête à l'ancien régime du président Macky Sall. kon ginnaaw bi nga xamante ne moom joxoñ na kii di le président actuel di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba ñu tàbb ko président lors du 24 mars 2024 bi passé jamono ji mu nekk di reconquérir ak li nga xamante ne moom di l'électorat sénégalais l'électorat bi nga xamante ne li mu bëgg mooy fexe ba gagné ko ngir mën a am une majorité absolue à l'Assemblée nationale ngir mën a permettre à son gouvernement permettre à l'actuel président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye au danger gis ngeen noonu gars yi yéegoon ci garab gi moo mujjee daanu gis ngeen noonu souhaitons qu'il n'y ait pas de blessés parce que mbooloo mi bëri na ñu ñaan fekk ne kenn gaañu wusi parce que comme ni ngeen ko gisee ci kaw la ñu nekkoon ci garab gi waaye mel na ne affaire bi dafa mujjee daanu te mbooloo mu bëre ngi fi woon ñu ñaan kenn bañ si jëlee li nga xamante moo di blessure voilà ba tey ci li nga xamante ne moom moo di ambiance bi ci li nga xamante ne moom moo di ci mobilisation bu forte bi nga xamante ne moom la ñu fekk fii nga xamante ne moom moo di fii nga ci Sokone ambiance bi bëri waaye itam li nga